mbokki Sénégal asalaamualeykum man seen soppe seen xarit euh, seen doom seen frère seen sœur Ousmane Sonko may def vidéo bu gàtt bi rek pour euh, waxtaan ak yéen saafonte ak yéen euh, yee salaat sama nammeel ci yéen xam naa ni nu nu ko raw ngeen ñu nammee fas yéene ci lu gàtt rek am lu ñu ubbi ci ay tomb ci waxtaan ak yéen waaye di ko doore ci félicité encore une fois suñu gaynde yi suñu équipe nationale football bi ci bégal gi ñu bégalaat démb gannaaw bi ñu ko defee ñaari weer ci gannaaw ci Coupe d'Afrique bi mooy qualification bi nga xam ne mooy ñetteel ci lu mel euh, ñu war a dem fi àdduna yëpp di daje wala li ci gën a fës ci wàllu football loolu ndam gu rëy la ci Sénégal gàcce ngàllaama di féliciter joueurs yëpp di leen encourager waaye di leen wax ni Sénégal kontaan nañu ci yéen di féliciter it staff bi ñi leen encadrer waaye di tirer benn jàngat bu am solo mooy ñun Sénégalais bis bu ñu booloo nekk benn rek soo xoolee équipe bi moo munoo ci xam kuy Casamance wala kuy waa jurbel wala kuy waa Matam wala kuy waa Ndar wala kuy waa Saalum di entraîneur bi ba ci footballeur bi gën a jeex loolu mooy Sénégal loolu lañ ñu bëgg a xañ nag ci at yi yëpp weesu te dara waralu ko lu dul politique waaye bu Sénégal yëpp daje amul waaso amul fii dëkk ñu bokk jëmukaay am gëm-gëm amul lu ñu të kon loolu jàngat la gu rëy waaye di félicité it supporters yi supporters yi kontaan nañ ci seen taxawaay mbir mi noonu la fi ngeen ko jàpp foofu la ndax fulla fayda ak jom mooy jox nit li mu war a am te wana ngeen ko dem ba mat sëkk yéen ak l'homme du match